Mourtada Bousso la dëkk fii Touba moske tey jii nag li waral ñu mbooloo mi yëpp teew fii ku ne xam na ne fii di Touba moske dox suñ diggante ak jumaa ji matul 100 mètres tëli bii bokk ci tëli yi nga xam ne moo njëkk ci Touba yaakaar naa ko xam gaar bu ndaw nga xam ne bi ñuy liggéey jumaa ji bi gaar bi ñëwee ba ci station bi tëli bi bokk na ci tëli yi njëkk ci dëkk bi ñu waroon wax xàll Jolof waaye ñu gis ne dañ fi am ay jafe-jafe yoo xam ne nii yu rëy rëy ci wàllu ndox ndax tali bi boo gisee ku gis image yi gis jumaa ji da nga xam ne ñetti at ba ñeenti at ak ndox mi ñu la fi def mu doy doy waar lool at yi yëpp nag ñu ciy dox ay jéego di ci wax ba daaw ñu ne woon dinañ ko defar incha allah balaa màggal rek ñu gis ne ba noor bi ba ñëwee ba léegi ñu ngi ciy soññee di ko fàttali autorité yëpp waaye ñëpp tànkam nañu mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne nii tëli bii nii maanaam hôpital Ndamatou bu ñu dee évacué janatu ma waa fi la ñuy jaar li ëpp ci Euh, économie dëkk bi fi lay jaar ndax gaar baa ngi nii marché baa ngi nii mu nekk ndox moo xam ni dafay teewal ci diggante canal bi ak ndox mi matul 100 mètres mhm. muy lu doy waar mbedd mii nga xam ne moo ci sësit nga xam ne li jumaa ji yëpp moom rek moo fi moo moo fi nekk ci luñ tëliwul di mbedd mu mu mu doy waar woo xam ne yaakaar bu ñu dee xool ci ak calte ci dëkk bi bokk na ci mbedd yi gën a salte ci dëkk bi mhm. te it lu doy waar te ñu gis ne màggal gi mosaan ñëw mhm. buñ baaree déviation yi mbedd mi rek lay doon ce daaw gis nañ ne nit ñi nañ fi ay jafe-jafe yu métti ren jii gis nañ ne jafe-jafe yu day gën a métti. loolu lan bëgg waaw li ñu bëgg daal mooy autorité yi ak ñi nga xam ne ñoo ko war a defar ñu jéem cee ñëw ñu defar ko waa Touba ci kanam waxoon nañ leen daaw bañ ñëw ba war koo defar ba natt ko ñu aaye leen ko. waa nee nañ kilifa yi ñoo leen ko aaye euh, amuñ autorisation ci Ageroute pour defar pour pour laal tali bi ba noppi ñu ne dafa am kilifa yi leen ko aaye loolu loolu loolu moo tax laaluñ ko. ña leen ko aaye woon na leen fii ak diwén ko defar te léegi laaluñu kenn ku nekk ñoom ñi ëpp ñiñ mën a wax téléphone woo nañ leen wax leen ko ñiñ mën a gisante ñoom gisante ñoom wax bi ñu defal tali marché bi dem nañ ba ñi nga xam ne ñoo ko gàlloo leen mbedd mi nga xam ne moo des ci diggante fii ak jumaa nañ ko boole ci tali yi waaye taxul taxul taxul taxul taxul taxul ñu boole ko ci muy ndox moo xam ne fi mu boo gisee nit ñi kër yi nab bi ak ay foos la ñuy manque di mu ñëw tali bi te diggante tali bi bi matul 100 kon léegi li ñuy sàkku mooy ñu defaral ko mu am canal wala boog bu ko mënut a defee canal ñu jëlee ko fii ci fii fi ñu toll nii ba ndax tëli bi ndox mi daw ndox fi ndox mi daw fi taa li ko waral mooy tëli bi dafa dem ba ndox mi taa di ko wàccee léegi nag diggante canal bi matul 100 mètres léegi nag seetaan gi ëpp na lool gis nañ ne bi fi ministre intérieur ñëwee yaakaar naa plan ORSEC bi ñu ko déclaré ministre intérieur di fi ñëw li wër jumaa ji benn tëli boo xam ne mën nga fee jaar dem ci jumaa ji jaaroo ci ndox bu dul tëli 28 bi ñu teggalee ko fi jaarale ko ci CONIS yóbbu ko ci yeneen gox te yaakaar naa bu ñu dee wax centre ville Touba fii mooy centre ville bi dëkk boo gis dafa am centre ville te fii mooy centre ville bi kon léegi nag bu ñu fi bàyyee loolu lépp ngir jàpp ne nit ñi dañoo dañoo dañoo parce que di fekk ay nit lañ te gis nañ ne bis boobu bokk nañ ci jigéen xarit ñi ñu a mis ñu vidé xam ne dañu dëkk moom ay at xanaa ñun kay ñoo war a gën a mën di noyyi xet di di lu dul na ñu fi dëkk ñoo a def waaye effort yi mun ko saafara li ko mën a saafara ñu andil ñu canal mu yóbbu ndox mi wala boog ñu defaraat tali ba nga xam ne ndox mi jóge jumaa ji ndax ku ne xam na ne jumaa ji ci digg tund la nekk te fii ci xur la ndox mi jóge jumaa bu ñëwee mooy jàdd di dugg ci kër dugg ci mbedd yi ak nekk ci bu ñëwee di taaf yi di yàq tali loolu daal lañ bëgg ñu saafara ñu ko léegi nag liñ ci lii moom ab alerte boo xam ne waa koñ bépp dañoo yëgg jënd ngir def ko ngir yar ngir xamal ne nit ñi ñu jéem cee dox ay jéego buñ ci saafarawul nag danañ am beneen acte boo xam ne incha allah buñ ci àggee danañ waat ñu def loolu mooy li Mourtala Bousso la ak mbooleem njaboot ñi nga xam ne ñoo dëkk fii Touba économie la ku fi gis marché bi ak gaar bu ndaw li dugal ci économie ci Touba ak ci Sénégal amul fenn kon nañ ko defar bu baax baax commerçant yoon bi yoon bu am impact la commerçant yi fi lañuy jaar bu ñu dem armée la fi leen jaar ambulance yi nga xam ne ñoo évacué yi diggante Linguère Daara Matam ak hôpital Ndamatou yëpp fi lañ jaar dem jumaa kon yoon la boo xam ne route nationale la boo xam ne gis ngeen rek diggante bi ñu fi wax rek lim kéré ci embouteillage yi dëkk kenn xamul kon nañ ko gaaw daafara ci saafara ko loolu la ñuy sàkku wasalaamaaleykum